salaamaaleykum amaa de foot yi nu nañ leen yéen ñëpp ku ci nekk seen ab tur ak seen ab sant xibaar tey jii 12 ci wàllu tàggat yaram d' abord képp koo xam ne ni abonné goo sunu chaîne YouTube bu ko taay bësal bouton s'abonner bi ngay liker di commenter di partager dinañ wax ci Lamine Yamal match am ak Espagne a a di France waaye yamaatuñ foofu Kylian Mbappé aussi euh, ak nu mu war Espagne ak Barça Kylian Mbappé aussi nañ wax ci dossier am li tax ñëwul France ak Real Madrid Ballon d'Or vision waaye dinañ leen jox résultat match yi nga xam ne jot naa am ti neex yëngu tegu ci temps dinañ ci ràññee sunu bos équipe nationale Sénégal euh, moom yi nga xam ne moo dóor 4 bi à 0 mais te kookee ñu ko Côte d'Ivoire moo dóor Sierra Leone euh, par la marque de 4 euh, buts à 1 en Afrique waaye it yamaatuñu foofu gars yi kookee ñu naan ko Mali nag dóor la marque de 1 but à 0 waaye it foofu match la boo xam ne nii Touré moom moo jot a ci côté malien yi ñoom ñu ngi ñëwaat mu ngi noonu Sénégal dóor Jackson Jackson marqué son premier but dinañ ci ñëw waaye te ko kii di euh, Tunisie Comore moo ko fekk si def surprise dóor ko 1 bi à 0 mu doon match boo xam ne nii ah métti na tunisien yi vraiment nag surprise bu rëy a rëy a ah, moom moo nekk noonu ci côté euh, kooki euh, du Tunisie ak kooki ñu naan ko Comore mu doon match boo xam ne aussi gis nañ ne les Comoriens amuñu mën naa ni benn complexe ñu tiituñu xofuñu. ñëw nañ jàpp Tunisie dóor ko par la marque de un bi à zéro jóge foofee ca Afrique euh, dañuy des ba tey Afrique bokk Nigéria moom moo dóor Libéria un bi à zéro mu ngi noone moom it si nation yu mag a mag la en Afrique Cameroun moom it dóor Kenya ñoom it ñu ngi waat seen bopp di jugaat nànk-nànk actuellement daal équipe africain yu mag a mag ay score la ñuy dóor Brésil Égypte nag dóor kookee ñu naan ko Mauritanie suñu voisin yi par la marque de 2 buts à 0 mu ngi noonu ne Bénin dóor Rwanda par la marque de 3 bi à 0 en tout cas ñu ngi gis ay score yi am solo Ouganda dóor Soudan par la marque Soudan du Sud par la marque de 1 but à 0 mu doon xam ne jotoon naa am fii ci Afrique waaye Europe tamit amoon na match yu fa jotoon am yooyu aussi dañ leen koy tegal ci taal bi résultat match yi nga xam ne jot na fa am benn par benn mu ngi noonee kookee ñu naan ko mën nee ni Allemagne dafa dóor kookee ñu naan ko mën naa ni Bosnie 2 buts à 1 euh, Hongrie euh, Pays-Bas dañoo nul 1 but partout euh, République Tchèque dóor 2 buts à Albanie waaye te Islande déyul 2 buts partout mook Pays des Galles Johnson bu Tottenham bu ñoom Pape dugal na Turquie dóor Monténégro 1 but à 0 kookee di Ukraine nag dóor 1 but à 0 deux buts partout moo kookee ñu naan ko Suède ci match yi nga xam ne jotoon naa am ci euh, guddi démb gi yëpp neex yëngu tegu ci temps métti loole mu ngi noonee waaye ñëw ci kan xibaar yi nga xam ne jot naa root Thomas Tuchel nag en ce moment là mu ngi en négociation ak kan euh, loole di Angleterre pour mu doon seen nouveau sélectionneur ñu ngi xaar la suite nu mbir nar a ak na la naka la lépp lu ci mënti am dinañ leen ko tegal ci table bi beneen allemand bi nga xam ne jamono ji nekkul ci sélectionneur nekkul entraîneur mais ci ay conseil la doon moomee laal ci mbir ko euh, jox noonee 10 ba 12 bul boo boolee seen entreprise beek seen mën naa ni association bi nga xam ne ñoo gérer club yooyu yëpp conseil yi muy def ñoom loolu daal dina ko laal ci xaalis mu doon xaalis bu énorme mu ngi noonee kookee ñu naan ko Georges Junior mi nga xam ne euh, ay jamono tojoon na nekkoon ci temps bu ñu nekk Chelsea euh, jóge foofee ñëw Arsenal nag actuellement amatul temps de moom moomee nag jamono ji euh, club Arabie Saoudite dañ ko bëgg waaye moom bébétam yéene mooy toog foofee ca mën naa ni Arsenal gën a wëyal yokk ay performance bu baax a baax a baax a baax le manager de Liverpool kookee ñu naan ko Arne Slot a clairement indiqué qu'il souhaite qu'un accord avec Virgil van Dijk soit conclu bientôt dafa bëgg nag ñu jëlaat beneen accord tegal ko kooku di Virgil van Dijk mu signé waat ko foofee ca Liverpool il est prévu que le nouveau contrat fasse passer de Van Dijk à 300 euh, 000 euros par semaine son salaire actuel est de 220 000 euros euh, par semaine tal tim euh, talk mu génne li ni mel Manchester City nag pourrait se trouver se tourner vers kooku naan ko mën naa ni l'attaquant bi avec Sporting naan ko Victor Gyökeres si Barça parvient à attirer Erling Haaland loin du club mu ngi noonee le suédois ñu ngi xaar peut-être foot 355 moo ko gën di leeral que Barça fuqatee kooku di Erling alaan ci kooku di Manchester City li Manchester City di waajal mooy Victor Gyökeres mi nekk xam ne xam ne moo nekk foofu ci Sporting di fa def du dara jarul di toj bu baax a baax. ci la ñuy euh, concentré wu mu ngi noone Marc Cucurella nag à propos de Cole Palmer wax na ci moom nee na euh, s'il continue comme ça il sera parmi euh, les meilleurs il n'a pas beaucoup de force dans les cheveux mais si c'est son seul problème alors ça va nee na nag bu kon ne yoon bi mu jël nii mën naa ne dina bokk ci meilleur joueur ci monde bi nee na nag mën naa ne amul doole ju rëy ci ay ci ay karawam waaye it loolu rek du problème nee na bu dee loolu kese mooy problème bi kon nag lépp dina baax kookee ñu naan ko Cole Palmer ak yaa nga xam ne ñoom ñaar ah, ñoo nekk foofee ca ah, Chelsea mu ngi noonee Javier Mascherano nag wax na ci kookee di Lionel Messi ñoom ñaar ay coéquipier la ñu foofee ca Barça doon ay compatriote Argentine Messi est le meilleur joueur que mes yeux aient jamais vu mooy ah, meilleur joueur bi samay bët mas a gis ci àdduna mu ngi noonu nee nee na nag à Barcelone nous avions un petit tournoi à l'entraînement avec trois équipes Barcelone dañ fa am tournoi bu ndaw euh, ci entraînement bi ak benn euh, trois ak trois équipes cinq victoires et tu champion cinq victoires nga doon champion Messi a décidé de mettre fin à l'entraînement plus tôt Messi nag dafa jël décision euh, dindi mbir moomee ci entraînement waaye alors la a marqué cinq buts pour que son équipe gagne dafa dugal cinq buts pour équipe am gagne et la séance était terminée mu def ko ci anime bu gaaw bu yomb kooku convoqué di Lionel Messi mi nga xam ne actuellement nii daal vraiment ba léegi bàyyeegut mu ngi continuer di woyal boppam bu baax a baax a baax kooke di Alvaro Morata nag revient sur sa dernière saison mu ngi noonu ak kooke ñu naan ko mën naa ne Atlético Madrid et sa lutte contre la dépression problème bopp bi mu amoon di ko jaayante nee na parfois ce que vous aimez le plus au monde devient ce que vous le plus parfois li nga gën a bëgg sa àdduna doon day doon loo gën a bañ sa àdduna mënu ma sax mën naa ni euh, sànni samay euh, dàll mu ngi noonu trois mois avant le championnat d'Europe euh, mu ngi noonu je me demandais si je pourrais rejouer un match avant trois mois avant coupe d'Europe bi da doon laaj nag est-ce dina mën a footballaat match nee na j'ai cru que je ne pourrais pas moom dafa jàpp ne mënatul woon football lorsque vous traversez les périodes très difficiles que vous souffrez de dépression et d'attaque de panique nee na boo amoon problème yi ni mel am jaxasoo bopp mën naa ne bopp buy dem ak ñëw di jaxasoo jaxasoo tiit ak ñoom seen nee loolu du yomb pour nga nekkaat ci temps bi peu importe le travail que vous faites ak liggéey boo mënti def la situation que vous avez dans la vie vous avez une autre personne à l'intérieur de vous contre laquelle vous devez lutter chaque jour et chaque nuit nee na nag ak situation bu mënti nekk foo mënti nekk di nga am keneen nit bu nekk ci boo xam da ngay jaayante ak moom matin midi soir ngir mën a ci problème boobee la meilleure chose à faire pour moi était de quitter l'Espagne et je ne pouvais mooy ko mu jóge Espagne te mënatul woon ko supporter mënul woon toog mu ngi noonee Joël Matip gars yi euh, moom nag mën naa ni jël na retraite am ci wàllu football arrêté na euh, carrière mais terme à sa carrière professionnelle de football euh, kookee di Camerounais boobee di Joël Matip jóge foofee gars yi ñëw ci kan kookee ñu naan ko Lamine Yamal Lamine Yamal nag en ce am na mille chances pour delluwaat foofee ci FC Barcelone catalan yi xam naa ne ñu ngi ñaan loolee nga mu xam ne moo ko a permettre mu delluwaat Barça mu bu ko amee ci match Espagne bi di ñëw boo ko defee beneen match Espagne du ko mën a football nag cumul de carton ci noonu nag dafay ñibbi directement foofee ci FC Barcelone wéyal ay entraînement bu ko defee du am risque blessure am na Catalan yuy ñaan nag ne Lamine Yamal yàlla na am rouge toog lu mat. cinq match du ko mën a football ak Espagne mu ngi noonu loolu la ñuy ñaan nag seen calendrier bi dafa serré match yi ñu war a football dafa bëri ba tax nag ñoom dañoo bëgg Lamine Yamal daal ñibbisiwaat foofee ci FC ab Barcelone may euh, mu bañ koo ñëw foofee ci Espagne yéen catalan yi <laughs> muy noonee ngeen xamee ko noonu jàmm ci yéen gars yi képp koo xam nag abonné goo sama chaîne YouTube bu ko bësal bouton s'abonner bi ngay liker di commenter di partager ba beneen yoon ci yeneen vidéo merci à vous jaa jëf